Rubadub, rubdub, baru tebaja kau iris. Get liris, hanya di rubrek di tep, di rubadub. break the déedéet génn ma sax da ci biir dafa tàng moo tax ma génn. wallaay dafa tàng mais nga defar rafet na. ah rafet na nii trop waaw rafet na. ah c'est tout belle comme ça. merci. ah xaaral ma dañoo wét de ma jël sama chaise ñëw toog wéttali la. waaw garaaw bàyyi ma rek ma toog. ah. wuloo ma toog fii sa wet ñu waxtaan. non garaaw bàyyi rek. dama soxla nekk man kese daal ci biir dafa tàng ma bëgg a toog fii man kese. نفيحلو توتي بابا مصر بعدين قبل واه مطلع السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام انت الحمد لله بارك noo def nag naka yaram bi baa léegi féex nga bu tarkal alhamdulilah waaye doo laaj anta bi ngay laaj nag tañ tañ tañ dem suñu yoon na nga bëgg fee nag wax ak kii yow eh anta gi mu ko réer ni xam nga lan laa lay yëgal boo dofee man dofu ma yow xamatoo anta njóogu kii anta waxoon nañ ma ni xàmmeetul kenn accident bi la anta noo def nañ ma ko ne la waykat ba wayoon moom mooy ah ko fiir daw lor na ndey ja waaw ko fiir daw lor de ah ginnaaw sëriñ gi ma ne la bul àggalee laa ñeme naa ah engagé bu ne ba mu des bii yow gis nga bii ak xolleeku ku parce que xaalis bi nag du ba xëy na duñ si ah, lu ci man yow moom da nga jox sama journée moom. man maa lay jox sa journée. Ah, waaw bii kay moo la koy jox. man yow tey ngaa ñu dem xam nga ni bii du wax ak ñun. kaa wax ak moom rek. ah jéem ko man day du ma yow gis nga bii ak xolleeku bi bii. Anta gauche droite. ci eh, indil mu doon kii sa nijaay mi ngi nii. léegi nag kii bi il faut ñu jotaat kii pour gëmal yàlla du wax yow waa léegi kay ah du xewat yooyu du yëpp day day guddal waa léegi yow doo ko faj engagé wu xanaa doo sëriñ kii damay ragal ni oto bi ko fiir du oto neen kii oto jinnee ko fiir te ngaa ñëw ñu dem boo ma déggalee kañ dem. bul ma laaj xaalis nag. ah sama journée nag naa la ko laaj. laaj ko kii. du kii nu ma koy laajee. waxal ak moom danaa ma kii koy wax ak moom kuy ku ko tontu la bëgg. nga liyaar ko. liyaar liyaar ko. liyaar ko. xëy na bu bu déggut it li ñuy wax dina dina dina xam. liyaar kii nga xamante ni bu kii waxee góor mu kii wax droit mu def nii waaye nañ dem waaye tamit waaye jaaral nit ñi dem waaye ah, maag sama bët moom day nelaw rek xoolal dex yi wala lii dëgg la waaw moo tax ba pare ndax soo ba léegi nit ñaa ngi may nuyu rek njóogu njóogu bu dul jeex njóogu njóogu ay salaamaaleykum rek da cee doy ak jamono jii microbe bi dañoo bari te microbe moom daanaka mu ngi gën a génnee ci joxante loxo rek joxante loxo foo romb nit jox ko loxo daa war a def buy génn këram raxasu bu egsee ci biir këram raxasu waaw su defee dara du la daal xool ko man daal biir biir bii la sama gars biig biir bu mel nii lañ ma woon biig lii gërees kese وي لي دغل الى خارج ما سحب لي افر دم يما لان دم يما دغل دم لان يوت سم بير بيو دما لي ليمو mais yow nag gaañ yow moom vraiment. yow xanaa xamoo ni làmb ji bi ñu xamee ni yaay waaj rek maa ko xam. ah bon. mu yow te man sax damaa waxul loolu. Mhm. ndaw si loo ci wax. ah allah ndaw si moom waxtaan nañ waxtaan nañ ba juboo hmm. mais nag li ma wax de kooku li aussi dal ñi ngi wax mais dal xamna ni engagement yi ma jël ak mom yaakaar naa ne ko mën quoi. xam nga yow da nga dox ba paré eppal non demul non sax. way deglu rek yow bima la engagé ba légui dila défal ay ñaan di dugg ay xëlwa lo ma jox li may jox ci sarax la yam man fay goma ba tey de. waaw. waaw parce que damaa xam ni yow roi des arènes ngay doon ëlëk ndaw si dama ko xaar gis ko dafa bok ci bagage yi. lum la laaj. grawul waaw gisal saa non non dafa grawul naan garaawul grawul grawul garaawul garaawul ni wóor na len yow sama fans club yi han ah, kaasu café bu fukki dërëm sax munu ñu mako jëndal comprendre nga te fi grand masse mo fi nekkon gérer fans yi. te léegi nak moy loolu. léegi nak da nga japp ni le grand masse mënoon sa mënu ko. sa way sa du solitaire sa yow est ce que koñ bi sax xam nañ ko. fal dank gis nga kalaasu saa gii du ñu nitu tey nitu démb ak bërki démb lañ xoolal saa nii rek de man maa gis saa ni ma gisee ndaw si laa gis saa saa laa jëkk gis ka ndaw si saa moom bul ñaan yàlla sax mu def la nii. léegi nag fan laay wute xaalis man. saa mu bàyyil mbir mi ak saa mu gis fan si club yi dugg ak génn di ko am. ah ah waaw. ndax doo ko am. Ah, saa solitaire la de. bàyyil saa mi ngay yaakaar ni solitaire la. ah waaw baax na man de vraiment man. ci kalaasu saa gi. Uh-huh. Ah, uh-huh. génération bu ñëw. Uh-huh. xam nañ génération bu ñëw dañuy nekk ak ñoom. su ko defee dañuy mën a dugg léegi nit ñi di communiquer ak ñoom bul bàyyi saa mu dem. non saa du ko bàyyi. téye ko ba pare du solidaire solitaire boobu ngay wax ci moom. génne ko sa xel bi saa mën na lu ne. salaamaaleykum. السلام عليكم واخنا في كان نيكو في ما كنا نجوغو في لدك السلام عليكم وعليكم السلام خلاص لاغ صباح كنت يالا صباح صباح جام من دي نجوغو لا دون لاجتي نجوغ وا لوكاي دوي اه من دي دين ما وكون نيما دافا مانا نيان loolu rek moo taxoon ma di ko seet si. Diop dafa génn. ah dafa génn. waaw dafa génn. su hmm. ñëwee lu ma koy wax. ah ne ko am na ku fi ñëwoon di lay seet rek. ah naa ko wax ko maa ngi waa kii waa Rugi. waa yow tey nag maa seet si ba léegi. kon da ngeen xamante. fu ma xamante nañ kay. Ah. nga xam ne waasu mii. yow fii nga doon wax fi nga nekk. xale bu ndaw ba nga jàppoon ndax ya daa ñëw dafa kaa suñu kër man kay xàmmee naa ko xanaa moom moo ma xàmmee woon kon xàmmee woo Assa di foo ah ok wax nga dëgg yow dëgg la ça va ça va bien na de bien maa ngi si jàmm bu baax maa ngi àgg ci biir ah loolu doxoon yow bàyyi ma dugg ci biir damaa dafa ëmb bii mooy juróom-ñeenteelu bantam nag ah loolu lu mën a nekkee du planning xamul fu ñu koy defee jëkkër ji nag nekkub dox ay xamul luy planning ci kaw suuf moo tax fi mu ne nii ñemewu maa dem yow kay mënoo dem gerte la nekk nii de yow yow kay du dem visite du dem hôpital du naan garab deful écho soo waxee mu ne la rus naa dem hôpital ndax dañ maa waxoon bu muy ëmbati lu may bougé mett yow mënoo dem yow kii na ko jàppale bi man de yóbbu laa doon seet dañ ma ne moom dafa man li muy def di <laughs> pare tàlloo waay kon baax na xam nga lan la man damay dem yow dem moom xalaatuloo ko kii ma gis ab dof la dafa weer man damay dem waaye doo ñëw toog baax na toog ñu waxtaan tuuti sax ma dem kon fekk ma fi ma doon seet daal